bu ñu mujjee di ko wax ci làmmiñ warula jafeñ kon la waxe yaa ngi fi xale yu ndaw yaa ngi fi jàng ba matal tey kenn falu wucc parce que Aliou ñaari doomam ci Asana Basiru ma soor nañu am nañu xam-xam layax lañu Ababacar Sy bi taawam a ngi fi jàng na Abdourahmane ibn Tayyata ngi fi jàng na choisiral kenn ci xale yi ñu remplacé fële balaa musiba am kat ñu ngi lay yëgal ne lëf boo xam ne jaase ko daan joxe bu ñu mujjee ba di ko wax ci lan la ñu warul a jafe ñu defal. Ousmane yéen bu ñu julee tak santé de maanaam daf conseil des ministres daal di defar benn décret am ku ñu fal ci xale yi ñu jullit d'accord ci fal xasan ku ñu asan adumin ku yaayam fatimati moo ëppoon xam-xam ci àdduna kii war naa mën a toog ñu defar décision bi mu xëy fal gouvernement am fii ci Médina dëkk bi gunge ko tabal yi ba sol dénk ko mu dem xam nga ne Marwan def secrétaire bi ministère de de de l'état bi mu daal di bind benn lettre faf casier gouvernement bi def ci signé ko signé Ousmane jox ko beneen courrier ne ko nag na nga jiitu gaa yi balaa ñëwaat soo demee jox ko ko fa nekk nekk ñi ñëw ay say-say lañu foo décision la ñu yor su ñëwee réel diw réel diw tëj diw ak diw ba dégg sama baat grave xale yi mel ñu seen deuxième jour la ñu seen gileen guy jaabal bu baax ñu ne ah kii day ñaari yëf lay def day daw lu mu ragal mbaa muy dabul lu ko ñor ndax yëfal xel yoo xam ne kenn dàqul borom borom dàqul dara day door a xew waaye mag bu masaa di daw day dàq dara wala dara di ko dàq waaye léegi bu njëlee maa ngi yëg daf daf xale yëpp yoon ni mën a waa ji gis ni ñi ngi daw dàquñu kenn kenn dàqu leen yàlla toog di daw te dàqu la kenn kenn dàqu la musu la xew giléem gii nag nañ taxaw xaar ko mu ne ñu ne ko foo jëm mu ne maa ngi jëm ISRA ci kan ci ci gouverneur gouverneur ngi daal di ko joxuñu am la ñu am ni parce que mu ne amoon nga ñu ne kii am ne ko si kii mooy gouverneur kan ngi jóge dëkk bi mu ne démb laa fi jóge ñu ne ko barki dama lañ fi jóge kii la ñu fal mais da nga yor leetar mu ne yoruma leetar ñu ne ko si da nga yor leetar daal di ko suuf xotti mbuus mi fekk lettre bi xale bi arrêté gawar bi ñu ñiir ko waaw lu ngeen xam ci li lu ngeen xam ci li lu ngeen xam ci li ñu ne ngeen ko ñu wàññeeku dellu si Medina Medina dañ toog rek seen poussière bi ak gawar bi waaw lu xew lu xew lu xew kii ñu ngi naan boo demee installé na ba war nañoo def passage de service ñu dellu si waat mag ñi daje ñoom seen wàll yi daal daje tal at daal di daje ñoom fëdéeru daje laaj lu xel ñu jox leen litre bi litre bi ñu miir ko ñu miir ko gis ci nag casier gouvernement bi ak signature Ousmane non ça gileen ki xale bi war gileen ni service la SO la parce que waaw parce que seen seen seen yëpp dañ ko wutal mandarga bii tuuma nañ ciy génn casier bi sa bos la signature bi sa bos la gileen gi gileen ni service la bu fekkee Ousmane kay lii na ma la mën a dalee ak ñoom ñu ne ku toll yow dor yu toll nii ñun dajeeg yow nga def décision ba ñu d'accord ci ngay tàng sama rawu tooy nii di rey ni ñun ñi loolu na ma mën a amee ñu liir ko ne wallahi la azim binduma ko cachet bi suma bas la signature bi suma bas la gileen gi gileen ñu service la waaye billaay binduma ko billaay binduma ko liñ ci man ci ameel moom ne Ousmane ni mu jube ñu ne ko donc ki ko bind yoon rey na ko jox na ko ñu rey ko mu ne mënuma ko joxe bokk bi ñëw mënu ma koy joxe ñu ne ko ah foog nga joxe ko kat waxuñu ci yow dara waaye moom mi def jëf ji di tuur la bakkanu jullit bu dara dalul ci rambaal yoon daf ko rey foog nga joxe ko Ousmane du ko joxe ñu daal di def ñu daal di cercle kër Ousmane am na ko fekk Sénat bi ak yooyu dañ ko tuumaal parce que moo war a falu bu Ousmane de gis na histoire bi ni mu passé fekk nañ fa fekk nañu àll yi ne ko attention de bu ngeen wootul gàcce dal leen de ni ma gis ñuy manifester ci kër Ousmane bu ngeen wootul di ko def parce que war a dëkk ba ñu waroon a relever waas yi dañuy yëg histoire bi défendre si ci dëkk bi ci capital bi tuddiwaale seen maire nag maanaam Ousmane daf ñu bëgg ñuux mbokkam te du yoon mu ñu dunu nangu loolu di manifester nag ci kër gi Aliou ne ana Assane mu ne maa ngi bàyyi ana Ousseynou maa ngi bàyyi ana Abdourahmane ibnu Talata maa ngi bàyyi ana Abdoulaye ibnu Soubayri maa ngi bàyyi mooy leen fab leen seen jaasi dem kër Ousmane soxla wuñu Ousmane Mirwaan lañu soxla bu leen kenn rombal laaj laal Ousmane ñu tëj Ousmane fukki fan ak ñeent jabaram rootuwul demuñu mars togguñu mu ne ci biir fasa gi rek ci ci këram rek ñu wër ko am na jabaree rasulullah bu nëbboon ndax ne daf koy yóbbu waa kër Ousmane ndax dégg na ne ay fan ak yi Ousmane naanul waa këram naanul mais bi mu ñëwee ci bunt bi li muy doon doon jabar rasulullah gars yi dañ ko bousculé ba mu detteer ñu root ci gànda bi toj ko yéen ñu nekkee ba metti Ousmane yéeg na ci miir sëpp dëkk bi mais man xanaa Aliou nekkul ci dëkk bi talaata nekku fi ci biiru nekku fi man maa gasoon biiru ruuma ba ñetti ne man xafe biiru rahma fa wala janna maa gastoon bi ñuy naan may mar maa sama njaboot mais bi ñu expliqué ba sol foofu dañ ko sànni xeer tuur tuur ba mu ci péluwaat ci biir kër bi mu ruuma un tel moo da daan def buy bëgg a xeexi ci barab yebal ko seeti place ba bu dee gannuuf ñu war ay giléem ndax tànk yi ci kaw lay tegu ba ñu yóbbu fas bu dee fu kekk ñu yóbbuy fas fu dee fu ñàkk garab ñu yóbbuy tànt maanaam daal foog ñu seet ba xam liggéey bi lu mu laaj kooku la ñuy wax arraidu la ko arab tuddee arraidu laa yugzibu ahla mais nañu kooku di seet di ñëw warul a fen parce que bu fenee sànq nit bi bu demee fekk réew ma amul ndox mu ñëw ne ndox ma du jeex bu armi di leen ñëpp rek ci àll bi moo tax arab ne dëgg dëgg fen moom ki ñu yebal mu yëri pour xeex waru cee bokk arraidu laa yugzibu ahla bi mu bëgg a attaqué di réew def nañu ne am ko ñëw ne ko réew ma day dëgg dëgg dëgg dëgg am nañu gàncax am nañu mala waaye nag ñàkk na ndox de ku fay xeexi daal boo toppatoowul ndox dina metti te root fii lu nu mën a doy ak foofa day sori ne bi def luy nii daawut daje mu ne maa ngi taxaw di garanti képp ku ma gasal teen bu ñuy wax ruuma teen mu ne ko nag benn teen ko bu màgget lu war a mat juróom ñetti fukki at gi amul ndox na bi ne ko volontaire gas ko gàddu naa la àjjan Ousmane daal di fa matériel am ko bari alal la woon fay ay ouvrier jëm ruuma pour gas ko bi mu laata àggee benn ñeefar bu bari juleen jaar fa xamam àll ba gis teen ba amul ndox mu gas teen ba ba teen bi gën te li bi def na koo gas rek gàddu naa la àjjan Ousmane deret fekk ndox mi du jeex waaw mu wàññeeku ñëw ne ne bi man de dem naa baa gawaay teen ba fekk naa ndox maa ngay xalxali te ki ko gaar siéfar la ne bi ni ko an niyatu atlaqu min al amali an niyatu yéenil julit atlaqu moo gën a jote ci yàlla min al amali ci jëfi yéefar julit bi yéene gas teen bi pour na bi naan ceeg saaba yi moom la yàlla gën a gis ci ko gas teen bi pour pour pour nga gis ci say julit teen booba nag la leen di fàttali yéen a ngi naan ma toog fii tey di mar te maa gas woon te ruux ma te di ko ne bi la la waxee ñëpp a fi woon saa ni koy xeew na dugg ci biir kër bi bi ñu yebalee Assane ak doomi Talatu ak doomi Subayru ak Xuyeynu waa dëkk bi xamuñu leen waa waa waa Misra xamuñu xale yëpp ñu sànni leen xeer xaaj asan si te ñoom dañ ñoom ko défendre day di tuuru nag am benn waay bu muus bu ko bu ko xam ne ne hey def ngeen musiba xam ngeen si tab rasulullah bu nit ñi dañu yëgee loolu tey li ngeen doon dox du faju te di ngeen alako yéen ñëpp ñu daal di forcé nag nare miir bi fekk Ousmane ngi toog képp képp képp képp Ousmane maa ngi dénk ku ma ilif ku mu doon bul moytu bul fayu ñu ko fekk mu ngi jàng alxuraan sóoru taaru ñax bàqara mu ngi toll fu sa wétu fekkumul laahu il faut bu ko jaasi ji dog te xar bopp bi dara junit tiis ba léegi boo demee Medina te bari xaalis te xam fa soo neexalaatee dañ ne woon kaamil ba mu nga fa gëtëy fajar di taxoon fa gëtëy ràññatu jabaram a ngi toog ci wetam way da naka la ko waa ji dóor jaay si rek Ousmane nërmeelu ci ci ci ci ci kaamil bi ak sikkinam bu jëkk boobu mu xàcciwaat loo suñu nii loxo yi mu dog loxo yi ndaw si ak bàyyi baaraam bi boo gisee téere yi ne bëgguñu koy nettali li doxoon ci saaba ya loo gëba lim sàkku ana sajara baynahum kenn waru la nettali passage ci saaba yi ak yàqu-yàqu bi xew ginnaaw rasulullah gis nga Ousmane bi mu tolloo foofu te deeagul asan mi ñu fali woon mi ñu bëggoon a fal ali jur ko moo jëkk dugg mais ñeneen ñi dafa fab tànkam teg ko ci bopp góor gi ñu ko alors looloo Omar jariñ tey kële kan ngeen bëgg a folli ji looloo Omar jariñ tey Ousmane Tine xàmmee ko daal di ree ne ko doom teg ci tànk yaa ngi teg da dil bopp ba sa bàyyi ormaaloo bu lay boo demee àllaaxira wax Aliou lii du ko nangu du bés bu tekkee tànkam nag dafa joxe si nit ñi nañ ñu ngi ko jekk daal di génn dem tey nañ ko bi trois jours kenn mënu ko suul guddi la ñaari gars yi volontaire pour suuli ko ku ñu gisee naan kii Aliou ak Faye ku ñu gisee ñu bàyyi um ne yëkka xeex bi di dem rek di dem ba yësit ak maa yëtu jaar fii ñu posal lu kii rëy lu kii ñuy dem di dem nag ba kii tax may waxtaan ñëw kii ñu di ko sëy benn dum ngay wut ñu jiñoon ko nag nag parce que booba jamono yi borom xam-xam yi rawoon ci adduna booba dàq jaamu yàlla yépp dañu amoon orma ci Seydina Ali di Rasulullah ne bi taxawal na ko ñëpp taxaw mu ne yàlla seedeel nag sama rakk ji dama ko bëgg maa ngi lay ñaan nga bëgg ko te bëgg ku ko bëgg allahuma waali man walaahu wa addi man adaahu aliyum sama rakk la bëgg naa ko yàlla yàlla nag ma ko bëggal te bëgg ku ko bëgg ku ko noonu yàlla nga ko noonu ma di mosaa wax loolu ci mbooloo benn waaye bu pànk jóg na ko ah yaa ngi bëgg ëppal nag kat bàyyi leen ngeen xërëm yi ñu bàyyi ko nga laaj ñu asaka ñu nangu koo joxe nga xeexoo noonu xeexu yooyu yëpp day la nga téye si përu gu rakk gi bëgg ko teg ci suñu koy tey waaw loolu yaa ko wax wala yàlla ko wax ñun indi ko aw min indi rabbi mais dina teg ko mu yàgg mu sugg ne ko bal min indi rabbi yàlla ko wax waaye ci waayam boobu ci rasulullah nabi daan wax ay waxat moo tax ñu bari ci réservé waaye ñu tuumaal leen xam nga gouvernement dafa bari doole mën naa xëy rek tuumaal la loolu mu génn kenn sax boo ko xalaat ñu rimbe nag képp kuy aalim foo mu ne ni ñu indi la rey la Hasan Basri ci lañ ko rey Hasan Basri ak Saïd ibn Jubayr bi la may nekk li léegi ñoo marché jamono ñoo xawoon a tollu allo mais téere yaa ngi laaj laaj bu sew dinañ ci ñëw léegi ñu ñu commencé nag di rong diw dey mu nga ba ma ko moo fa dàq jàng mais presque ali la fa nekkal déwélee nga tàndaa fa kilifa la fa waaye presque Aliou la fa nekkal fu ñu ñëmee rek télégramme dem ci gouvernement ba ñu dal di yebal ay ensemble ñu jàpp comme mu défendre ci ci capital bi ñu rey la fekk ay jullit ak jullit la Sayd ibn Jubayr bi nag nekkoon Sufyaan nit koo xam ne amul jabar amul kër yoo dëkkee oor fanaanee julli demoon na ba këll rek la yoroon waaye këll bi bu ko dijee li mu soxla ñëw ci bu soxlaa ñëw bu koy dijee ñëw mu fees del bu soxlaa ndoxu galaas yi bu koy dijee mu fees del bu soxlaa ginaar bi di rëti bu koy teg rek muy fees del waaye dëkkatul ak kenn mu ne caali bi na ne caali bi bu mujjee ragal nit ni ni bàyyi may ragale nit ne la mu doon ragal nit bi ñu rëbbëgal bi loolu ba mu des ci ñu di ko seet Omar ibn Xattaab bi doon sandre mi sot sandre mi ñu dégg ne ne waajaa nga Tamba ci gouverneur bi Tamba président bindal lettre jox ko ordre du jour mu àndandoo très gendarme defende bañ demee dal ñu ne daal xëy na yéen ñu xaw a kooba ku faj doon daal ndax parce que ñu fi àll la te foofu bari na rab tegtal leen ñaan dandoo dem fa bi ñu agsee ci digg àll bi am na déeg bu ndaw bu fi ne bu mu daan sangoo waaye nag benn soo ëmmatoon ci wetam mu di benn église boo xam ne benn labba labbe fa installé di jaamu yàlla ñu jàll dafa naan sàndar muy jàll dafa naan laaj ko ne ko dafa am daal ku ñuy seet nit ku digg doomu la nag ku ami tuñ tuñ yi dafa rëy kawar gi dafa dijj bët yi dafa xonq dégg nañ ne daal àll bi sorewu fi mu ree na leen daal déeg bii daal dinaay gis bu ma taxee sama taax ñaare ku fii naan te duma gis mu ànd ak kenn tëru leen ko fi gars yi dem tëru ko fi shahid mar une heure mu mar foog kële bi taaj naan ba noppi toog bëgg a sangu na ko la jub déeg bi xefeg nit xasaw ko mu def ni bàyyi muy def booba taawasa waaw jërëjëf waay rawxaan rawxaan yaag say rafaqaawu yal leen yàlla fay taxawasa qabla alwaxyi taxawasa xaane boo gisee nit da nga koy ragal ni gola di ragal nit mbatti la kooku mooy taawasa daloon na nag rasulullah moom la alaaji maa li tegg naan taawasa njaaxallu na nit kooku nag dootuñu ko tudde nit dañ koy wax njaaxallu bokkul ak taannasa taannasa mooy golo gu miin nit ñi ba dëkk ak nit ñi mooy bàyyi ma boo xam ne léegi yor na jikkoy nit dafay wuteeg nit koo xam ne léegi jikkoy bàyyi ma la yor taanasa ak taxawasa taxawasa mooy nit ku yor jukko yi njaaxal la ni daal saahid bii may waxtaane taanasa moo di golo goo fore ci àll ba indi ko ci kër gi yeew ko di ko jox añ ak reer ba mu mel ne xale yi dootu leen daw di foog muusi di foog xar yi ci biir kër gi du noonu waaye nag ñaare njaa àll mu ñu dugal ci biir kër dina am noflaay ak teranga waaye sañ-sañam day dal di bëgg a néew waa ji mënoon gan ba am goroom man këram ba yeew ko ci këram utal ko kaaf di ko yekkal ceeb bu baax di ko jox cereeg sëmbi gola di ko sang nag gola gën a fu teetu rëy rëy rafet set wecc ba am bés benn golo gu àlla yooyo yooyo yooyo yooyo yooy di ñu dàq ko mu juux nag ci golo googule gis ko taaram ne ko waajale yow këriñ bi mu ne ko man de fii ma ne dara du manqué ndox fi la may fekk repas yi suba ak ngoon fi la may fekk dañ may sang di ma wat gis nga sax sama ndeseti ndekkee ngi golo gi daal di kaññee waaye nag golo gi dawal ba tam gis ci ndigali ci yem mu ne ko waaw lii la ka kii kii moom lañ ma téye kii mu ne ko ah ba munu laa tëb dal ci janj gestu seen beneen janj nga tëb dal ca nelaw ti ku yëg ci ci garab lonka say tànk daanu ba dentu dem mu ne ko ah déedéet nag wax dëgg yàlla ceen gi de ma ko tey mu ne ko kon nag jëlal sa tànk maa ngaa dellu ñaay ba man man di tëb di dal dal moom moo fu ma gën a intéressé ah la liberté waaw kañ waaw mais te teraanga bi dañ da daf ci bokkul nag liberté bokk ci dafa am lu ñuy wax wóor rab la wu ne ci àll bi te ñu di ko lekk yàlla dogal mu ànd ak ndoomam su ndaw juux ci capital fekk fa moroomum ra moroomam mu ñu jàpp di ko teral subaak ngoon lekk ak naan tëdd doom ji ne ko yaay fii de moo ñu gani mënu ñoo def ni moom mu ne ko doom déet nañ dellu ci àll ba for ci ñax mi moo gën kat kii de bés bi muy xaar fii bu la fi fekkee nga xam ne li ñu nekk gën de bañ toogee ba xemem ko yàllaa te mu jaar faak doom jarajan teeg muy bés biñ ko soxla yeew buum yi mu xararari ba tàyyi ñu yeew fat dawal paak bi ci put mi tiis mu wéqu doom jëtiit nag daw ne ko laay la yaay gis naaw nañ ko def yaay daal di def lees nii gémmiñ gi seetal ma sama bëy mbaa dara takku ci ci liñ ko daan liñ ko daan servi mbaa dara takku ci lii ni def bëriñ ko def mbaa sama ciiñ mi dara takku ci ci liñ ko doon jox yaay waaye Saïd dafa mujjee njaa àllu dafa njaa àllu ba ragal nit taawasa qabla al waxyi taawasa qaanita rabbihi li tax na bi mujjee fañ nit ñi dem ci àll yi ba yeb ak bàyyi ma yeeg mala yi xam ne tërëb bii ngir jaamu yàlla rek wala mu ñel ihi mosu ko yitteel anil illahi ba tax mu fàtte yàlla su xoolu benn su xos àddina loolu daf saxit saxit ñëw na ci diig bi sandarma yaa ngi koy tëkku ëkku nit xasoo ko mu daw ba mu yàgg mu dellu si engagé ko yoon boppam bi mu sumee ko rek bi mu sumee ko rek gars yi ne ko tarap mu ne loxo ñu ne ko président la oo mu daal xam nga lu mu jëkk wax président ma oo ñu ne waaw mu ne fay sa dia ajal waa la yastaxiru saata wala yastaqadam ndax waaye datu nit bu xasee ñoo foog borom de xam na liñ koy doye booba moroomam naan sangam yëpp rey nañ leen bisimilaay fab as mbuusam boole ko këllam yor tuuti la ñu dox ak si kër labbe jamti so àll ba nag dafa bëri lubwa lubwa mooy gaynde gu jigéen ñu ne ko comme jant sonan nañ la ñaan labbi bi mu abal nu peron bi ñu fanaan fi parce que fii ko fi fanaan ci suuf gaynde lekk la mooy leen man du ma dugg ci kër goo xam ne borom dafa weddi Moustapha weddi yàlla ñu ne ko ba na nuy def te yow lañ doon wut mu ne lu ngeen neex def de waaye du ma dugg ci kaw de gars yi amuñu droit rey ko foog ñëw ko président président jëmm jële bëgg a gis benn waay bu si ànd ne tant pis pour moom bàyyi leen ko day dee rek su ko gayndee lekkee mu dee benn yoon ñu bàyyi ko yëg ci ko làbbi bi nag dafa fanaanee jaamu borom fanaanee jaamu fanaanee jaamu gis na ba guddi gi xaajee genn gaynde gu jigéen ñëw foon Saïd wër ko foonaat ko wër ko foonaat ko sujjóot mel ni ku ko nuyu daan da ko def nii loxoom mel ni ku koy garde tuuti gaynde gu góor gi ñëw wër ko foon ko dem ca bopp ba daf ni loxo mel ne ko koy garde labbi baa ngeen di gis gaynde yaak waaja gaynde yaak saaxit ba fajar di bëgg a xar gaynde gu ne sujjóot mel ni ko tàggoo daal ne yàlla teg ko ci ko fi bi gars yi laajte yow nag labbi bi ci kër ne yow wàcc fekki waaj yi ne ko yaay kër mu ne ko may zaid mu ne ko ku la jur mu ne ko jubayru ci ban diine nga ne mu ne ko diine Muhammad mu ne ko gis naa si defante biig ak gaynde yi won ma ni ñuy dugg ci diine ji ma dugg ci dal di tuub ci waa ji gars yi yeewooguñu sant bi yeewooguñ la bi bi tuub na ba nekk taalibe waa ji yéegaat gars yi yeewu jiital ko ànd ak moom bi ñuy agsi ci capital bi jant sona kenn du yéeg chef d'état guddi mu ñaan leen den dama bëggoon ngeen may ma fanaane ci sawi Malick bi mu subaa ñu daje pale ñenn ñi ne ñàkk fay daal rawul du wut nit ba gannaaw ba ma ko gis ko ba indi ko ci capital bi muy raw kii bu ngeen ko bàyyee mu daw mu leen du ma daw de wala leen ma fi ngeen ne rek bu ma ñëwee yaay si leen ñenn ñi ne kii daal gëm yàlla gi ñu fekk ci moom du daw mukk te bàyyi ko mu fanaan ci jàkk ji fanaan ne junni bi sa kër di jib la ñëw ci nit gaa yi ne leen nii saahibakum jaa wa rabbul kahba seen prisonnier bi leen di yee yéen a ngi biddante jóg leen waxtu yu jot na gaa yi daldi ko song joxe message président yëg ñu jàpp nañu waa ji indi nañ ko ñu formé urgent benn benn conseil des ministres dégg ko mu taxaw nag jaas yaa ngi ko wër statut yaa ngi ko wër bi bi chef di génn ñu dóor ibnu na ngeen ko waxe ibnu national bi ñëpp taxaw mu ngi ne sëmma rek taxaw mu àggal nekk yow na nga tudd mu ne ko jeudu soodu nag ci arab mooy firi texe mu ne ko na sa baay tudd mu ne ko jubayru jubayru mooy firi jàng lu damm man sama tur daal mooy texe sama papa ngi tudd jàng lu dam ajaaj ibnu yusufa kat boobu mooy chef bi doomi bàjjeni merwaan la mais comme tuuse nañu waaj rek ne ali la faral mu daal di ko ne waaw sa baay tuddul noonu ah yow tuddul la noonu da ngaa fen ci wëliwu day noonu yow yaay saqiyun mooy firi tixaa bi sa bàyyi kasir anta saqiyun ibnu kasir wala kon zeydun ibnu jubayru anta saqiyun ibnu kasir yaay yaay yaa tudd texaadik sa bàyyi tudd lu juboon ba noppi damm damm wala kon jang damm sa bàyyi damm la tudd tuddul jang yow tudd la texe texaadi nga tudd mu ree ne ko sa ba sama bàyyi la gën a xam sama tur te mooma tudde noonu moo ko bari nga gémmiñ yàgg sa bàyyi dinaa leen remplacer seen àddina naaram tàll sa mu ne ko su ma wóoroon na loolu yaa ko yor yow laay def buur kon yow laay jaamu gis nga sër gis nga femme fa gis nga femme faar bii ak waloor wii su fekkee da nga ko garde pour xettali ci ku sonn wala dimbali ci jullit xëy na moo am njëriñ waaye bu fekkee kat mataalu ayaatu dunya bi rek tax nga garde ko boo ñëwee ñu tugg ko boo jógee ñu bàyyi ko maa ngi laa yëgal ne bés penca nga tiit yoo xam ne dina tax jigéen ju ëmboon ci nguddi ngoon wasin dina tax koo gis defe ne dafa màndi te màndiwul bés penca nga tiit yoo xam ne da nga gis nit ñi tas ëllu kullu murdi at ama arda at wa taddaxa kullu saatin am la am la xaa wa tara naasa sukara wa ma am bi sukara yii yii bu fekkee àddina rek la yem amul njëriñ tiiti bés penc dina fàttaloo ku ne loo musa am dina tax jigéen juy dooru ëmb wasin dina tax góor tàggoog sa bopp ana ko benn question rek laa lay laaj Aliou ak Ousmane ku gën mu ne ko ki ci yàlla gën a gërëm mu ne ko ci yàlla gën a gërëm mu ne ko ci ëpp yiw mu ne ko ki ëpp yiw mu ne ko ki xam seen carnet ko xam mu ne ko justement Aliou nga safara wala mu nga àjjana Ousmane Aliou Aliou safara la jëm wala àjjana la jëm mu ne ko su ma demoon àjjana ba gis ñi fa nekk ak seen tur dem safara gis ñi fa nekk ak seen tur te ànd ak sago dinaa xam fu ñu fi jëm safara mi yaa ngi ko wër di ak jar si mu ngi taxaw mu ne ko taamul gan reyin nga taamu mu ne ko duma taamu benn waaye wóor na ma ne reyin woo ma rey rey yàlla dinaa la rey juróom-ñaar fukki reyin mu ne nañ dem nañ def ak moom te terrain ba naka la ne wëlbit ba tolloog cadre buntu gi xaqataay moom Saïd gars yi nag yusuf taxaw am na kat ñeent fukki at réewul waa jooju am na ñeent fukki at mu ñu réewul ñu ne ah ñu ne jaax nañu waa ji mosul a ree te ree na tey mu ne wetu na leen ñu ne ko mu ne ko waaw yow dégg naa am nga ñeent fukki at réew la mu ne ko waaw mu ne ko lu tax mu ne ko dañ ma bind ci suuf safara di ma xaar te xam naa ci mu cëm dit mu ne ko nun dañuy ree te ci suuf la ñu bind mu ne ko xol yi yemul dëgg la waay ñu jiite ko ba ci buntu kër ga mu ne allahuma la taxlak allahuma la tusallitu ahadan baadi yaxtulu maa ngi lay ñaan yow yàlla ci sa kattan guré gi daraje rasulullah yàlla naa yàlla naa doon darñeeli ko waa ji di rey ajaatkat rey na téeméeri junni nit te jullit lañu ñoom ñëpp te buuru jullit la woon xam nga gars yi na ma yàlla baal dañ doon doxale rek lu leen neex. waa jooju defoon def loolu borom timis jooju ci ci ci ci jaraaf xam nga mën naa def benn article ne ginnaaw dix heures kuñ jàpp rek nañ la rëy kuñ jàpp nañ la fanaan ci kaso bu subaa ñu indi gars yi roon da jàpp ñetti gars yi bari set mooy xanaa yéen da ngeen may fonto du gis leen journal bi déggu leen yéene bi lu tax après dix heures ngeen di dox kenn ki ne ko man dama am benn salle carte boo xam ne ci laa daan carte ak samay moroom ñu am rendez-vous toujours dix heures ma tardé nag doon dem sa gars yi jàpp ma mu ne gendarme yi xanaa da ngeen dof kii di góor am xaritam wala rek ñoom di dem ngeen di ko kii bu leen jàppati ko mel ni ale doon kenn ki yow foo doon dem mu ne ko benn coro bu ma am amoon habitude rek di fa fanaan amoon yitte nag doon ko toon totoo ba tardé ci laa doon dem gars yi jàppam mooy leen yéen doomi taskare dofe xaraam yi xamu leen ko ngeen war a jàpp kii doon dem di doxaani ngeen di ko jàpp allez dama se waa ji dem mu ne troisième bi yow loo doon def mu ne ko sama yaay dafa amul ku lul man ma daan ko taxanal sedd bi métti mu di ko jaaroo matt mi jeex biig ma xalaat ne balaa guddi gay jeex liw bi dina ko gaañ gaa yi jàpp ma mu ne rey leen ko c'est bi àtte bu jën